أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci ñaareelu xaaj ak yonent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam dars bi passé ñu ngi woon ak buur bi nga xam ne mu ngi doon fexeel yonent yàlla nuux doon ko proposer ay mbir demoon na sax ba koy wax ne gaa yi nga xam ne amuñu doole ñooñu alxuraan naan duafa nga xam ne amuñu alal seeni nelaw seeni nelaw doyul seeni yére dafa yemamaay yére yi dañoo cëkk seeni yaram daa weex seeni kawar dafa coqaaral seeni yaram daa didim gaa yi daal ñun duñ toog ak ñoom soo mënee daal di ñu utal am pénc moo xam ne ñun borom alal yi ñun kibaar yi mag ñi ñoo ciy toog ñun kese nga defal ñu ko ñi daal nanga leen dàq ent yàlla nuux daal di réussir loolu yàlla dimbali ko mu rëcc ci pexe boobu loolu nag buur bi waxoon na ko ko ci benn seetlu bu mu seetlu ne nuux kat nit ñaa ngi commencé di ko wuyu si waxoon nañ bi passé yonent yàlla nuux ñaataa ko gëmoon ci woote bu mu woote ñaata lañ waxoon ñaata lañ waxoon déedéet juróom ñetti góor ak benn jigéen lañ waxoon léegi indiwaat nañ beneen proposition ne ko ñun daal bëgg nañ waxtaan ak yow bëgg nañ laa déglu waaye nag da ngay dàq ñii de bu leen jege benn yoon su ko defee nag loolu mooy charte bi nga xam ne soo ko defee ñun ñu déglu la léegi lan lañ bëgg mooy même juróom-ñeenti nit ñooñu wala juróom-ñetti nit ñooñu ak benn jigéen ki su leen dàqee ba dajale leen ñii ba pare wax ak ñoom ba pare ñii nag ne ko ñoo lànk gëmuñu la léegi nag ñee bu ñu demee dootuñu ñëw ndax dañuy mere ndax dañuy mere waaye gis nga yàlla dimbali ko mu réussir loolu wa bada al muwajaha bayna nuux alayhi salaam wa qawmihi wa bada at tahaddi nuux tàmbali nag jànkaarloo ak yeneen jafe-jafe di lancer défi nitam yi ak buur bi yàlla tabaraka wa taala diñ ko nettali ci qur'an mu ne watlu alayhim naba'a nuuhin iz qaala li qawmihi ya qawmi in kaana kabura alaykum maqaami wa tazkiri bi ayatillah fa ala allahi tawakkaltu fajmi'u amrakum wa shurakaakum summa la yakunu amrakum alaykum ghumma summa qdu ilayya wa la tunzirun borom bi tabaraka wa taala mu ne yow muhammad alayhi salatu wasalaam nettalil nit ñi xabaaru nuux alayhi salaam ba mu waxee nitami moom nuux mu ne nitam yéen su fekkee dafa rëy ci yéen nekk gi ma nekk ak yéen dafa rëy waar gi ma leen waar ci ay aaya yàlla daf leen a jaaxal daf leen a gêné na ngeen yëg ne man dey ci yàlla laa wàkkirlu gis nga wallahi jamono bu nekk alquran yàlla suñuy nettali histoire yonent yi ngay dund tey ji waxuma la sax ngay dund histoire yonent yàlla muhammad waaye ngay dund tey histoire démb ak tey benn la ci àddina bi tey am na ñoo xam ne bëgguñu dégg waxu yàlla beneen bi mooy ku baax ci biir yi nit da leen di zene ku baax soo nekkee ci ay biiri kàccoor dañuy am zen ndax lu ñu bëgg a def rek seen xel day nekk ci yow li nga fi nekk day tax par exemple tey bu ñu toogoon fii jàkka ji ku bëgg a tox est-ce que mën naa tox ci jàkka ji déedéet da nga gis muy furux furuxi rek yaram bi mel ne luy xasan muy furux furuxi du mun a toog bu doon kuy naan la kazalik noonu la kàccoor mel ci biir nit yu baax ku baax day gêner ay bandi moo tax nu ne leen su fekkee li ma nekk ak yéen dafa rëy waar gi ma leen di waar da leen a jaaxal man day fa alallahi tawakkaltu ci yàlla dong laa wékk samay mbir joxuma ko keneen faj mi mu am rakum fexe leen seeni mbir yéen tamit daf leen lu leen neex seen bokkaale yi ngeen di bokkaale sax bu leen neexee ngeen dem ci bu leen lu leen mënta neex rek ci àdduna def leen man faalewu ma leen yàlla rek fa alayhi tawakkaltu loolu loo ci dégg mooy yow booy wax ngir yàlla bul faale kenn yàlla rek yàlla rek bul faale kenn lépp looy def rek na yàlla tax na nga yëg ne yàlla moo lay aar bu ragal dara bu fekkee ne gëm nga yàlla wàkkiirlul ci yàlla jeex na mu ne bu leen xaar sax seen mbir yëpp fexe leen bu leen xaar woo leen lu ngeen mën a def lu ngeen mën a fexe fexe leen nuux loolu la leen wax lakinna qawmuhu ma araadu an yafalu zalika fa qaalu safih ay mbokkam yi nitam yi fexe luñ ko benn fexe waaye dañu ne kii dafa dof safih majnun utrukuhu fa dof amul xel dafa dese lii mooy sunanullah fil ard képp amul yonante bu est ce que yonent yàlla Muhammad waxuñu ne ko dof la yonent yàlla Muhammad wax nañ dafa dof ba yàlla di ko weddil naan nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun déedéet giñ naa ci sa màggaay xéewali borom yim la defal yow muhammad doo dof wala yàlla moo koy weddil kon du hasard chaque jour nit ñi wax ci diine da ngay dégg benn baat ñi ay dof lañ bon ñii yow ñi ngay waxal ñi nga xam ne dañoo dof mus naa am benn waaye boo xam ne dañu ne moo dof bi kii nga xam ne gëmul ku dul yàlla kii di dof xala loolu lañ koy xase kii di dof kii nga xam ne gëmul ku dul yàlla kon ku gëm yàlla dof la loolu mooy sunanu laa wala nuux loolu lañ ko wax ñu ne sofi dafa manqué dafa dese ñenn ñi ne majnun ab dof la utruku bàyyi leen ko bu leen wax ak moom wa wasala al amru annahu mbir mi dem na sax ba continué ba nga xam ne tere nañu nit ñi nag bu njëkk ba sax daana wax nit ñi di ko déglu mais ñu ne bu ko kenn dégluwuti bu ko kenn rombati di ko nuyu bu kenn waxanteeg moom ndeysaan nu continué woote wa marrat mi'ata sinin walam yu'min ahad téeméeri at romb kenn gëmul téeméeri at kenn dégluwu ko téeméeri at kenn jegewu ko téeméeri at kenn nuyuwu ko kon ñun sonn ñu ah ñun loo loo dee dee dee dina am benn nit sax bu toog di la déglu waaw ñeneen ñi sax dinañu romb mais ñun loo dee dee ñetti nit booy waxtaan ci waxtaanu diine dina am ñaar ñu toog ñoo xam ne ah même même ba mbir mi bu leen ñorul sax dinañ toog xoola yonte yàlla noo wa marrat mi'ata sinin walam yu'min ahad téeméeri at romb kenn gëmu ko wa kullu jiilin yaati bépp génération bu ñëw mooy gën a bon afjaru min jiilil lazi qablahu génération bu ñëw ñooy gën a bandi génération bi passé wa nuhun ma zala yad'u fihim nuh dañu rek di leen woo génération bu ñëw rek mu takku wax ba sonn ñooñu dem ñeneen ñëw mu takku ñooñu dem ñeneen ñëw waaye lu ko yàlla nattoo mooy génération bu ñëw gën a yées beneen génération fama amana ahad illa man aman gëmul lu dul ña ko gëmoon rek mooy ñaata mooy ñaata juróom-ñetti góor ak benn jigéen soo leen boole ñoom ñëpp ñuy ñaata ñuy ñaata juróom-ñeent ñuy neuf personnes fayinda isin ca jamono boobu nag jaa alwaxyu min allahi taala borom bi tabaraka wa taala daal di wax ak moom nag daal di koy waxyu bi amrin azim yàlla waxyu ko nag wax ju rëy mbir mu màgg yàlla mu ne wa awxayna ila nuux annahu lam yu'min min qawmik illa man qad aman fala tabtais bima kanu yafalun no ah li ma lay wax day neexul de waaye de na nga jàpp ne yow moom kaw suuf kenn dootu la gëm loolu garaaw na de wa awxayna ila nu annahu lan yu'min min qawmika illa man qad aman juróom ñeenti ñooñu da nga yëg ne du am ku ci yokk de ñooñu rek la de waaye nag bul découragé bul mer bul yenu problème bul yenu ay njàqare ci liñ lay def buñ yemoon sax ne gëmuñu ko doy na waaye dañu koy wax wax ju bon yow yàlla da laa gedd yow da ngaa dof yow konga yow da ngaa ay gaaf lu nekk ñu wax ko yonent yàlla noonu fa indaha yaisa minhum mu daal di découragé nag ci ñoom bi ko yàlla ne kenn dootul gëm nuux nag xam ne ku toll na yàlla moom saye lu mu wax mooy mooy dëgg mbir mi jeex na comme yàlla ne na ko ñii kenn dootul gëm nuux am am am kóolute gu wér ne ñii dootuñu gëm fa daa alayhim mu daal di tàllal yàlla ay loxoom daal di leen ñaan yàlla ñaan yëpp ñaan bi ci gën a garaaw mooy ñaan bu ay yonent yonent jàkkaarloog peuple am ñaan leen wala yonent jàkkaarloog benn nit ñaan ko kooku pare na naka noonu bu la ñaanee loolu lu baax naka noonu bu la ñaanee lu bon nu daal di jàkkaarloog borom asamaan ak suuf yëkkati ay loxoom ci kaw wa qaala nuuhun rabbi laa tazar alal ardi min alkaafirina dayyaara yàlla dëkk bii nga ma yónni ma nekk fi guddeeg bëccëg di waaraati junni at yu manqué juróom fukk kenn gëmuma lu dul juróom-ñeenti nit yàlla kër bul ko bàyyi ci dëkk bi kër rabbi laa tazar alal ardi ci kaw suuf si nu sax waxul waay populam de alal ard adduna bi bul fi bàyyi benn kër lu dul na nga ko bombardé na nga alal ña fa nekk dafa mel ni yàlla da ko ne waaw nuux yow sa ñaan gi garaaw na de kër yëpp mu ne yàlla xaaral ma wax la lu tax innaka intazarhum yudillu ibadaka te maa ngi lay yëgal ne wala yalidu illa fajiran kafara gis nga boo leen fi bàyyee li fi jot a baax sax dañ koy yàq te gis nga ñii ay bandi lañ duñ jur ku baax xam nga sax yonent yàlla muhammad ak nuux gis nga fi ñu wutee keroog ba malaaka bi ñëwee ñu yó- ñu dóor yonent bi ba muy nàcc malaaka bi ñëw ne ko maa yor ñaari montagne yi yàlla jox na ma ndigal nee na boo bëggee léegi mu këpp montagne bi ci kaw dëkk bi ñëpp dee mu ne allahumma ixfir li qawmi fa innahum la yaalamuun mu ne yàlla baal leen xamuñu yàlla ñii buñ ma gëmul tey ñii seen baay yi def ma lii amaana ñu ñu jur ay doom doom yi topp ma waaye xoolal mu dafa ne yàlla ñii ñii ay bandi la ñuy jur booy boo nga rey ñépp allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñun ki ñu am xamuñu ko ki ñu am xamuñu ko in kunta la tadri fa tilka musiba ah mbokk yi nuux daal leen di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu ne yàlla bul fi bàyyi benn kër alagal ñépp yàlla ñii boo leen fi bàyyee ay dañ li fi nekkoon sax ci lu baax danañ ko yàq waaye suñu amee ay doom doom yi ay bandi la ñuy doon wala yalidu illa fajiran waxul sax ay yéeféer la ñu nekk bandi la ñu nekk waaye dane dañuy nekk ay bandi ba pare nekk yéeféer gis nga Nuux ca jamono jooju Nuux alayhi salaam daal di ñaan yàlla nag neuf personnes yi ko gëm mu ne rabbi igfir li wa li walidayya wa li man daxala baytiya muminan وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا yàlla mu ne man nag yow yàlla maa ngi lay jéggalu man ak sama ñaari way jur gis nga nit mun ta fay ay ñaari way juróom moo tax da nga leen di ñaanal rek sa ñaari way jur munoo leen fay ñaari way jur mooy ñan ak ñan mooy sa papa ak sa yaay kan moo fi mun a fay papaam ak yaayam yëkkati sa loxo kan kan moo mun a fay papa ak yaay kenn kenn boo jëndaleen est-ce que boo leen jëndaloon oto fay nga leen est-ce que boo leen tabaxalee kër fay nga leen est-ce que boo leen yóbbee màkk fay nga leen est-ce que boo leen mayee un million fay nga leen lan ngay def pour fay leen lan ñaan rek mënoo leen fay da nga leen di ñaanal rek rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira yàlla yàlla nga yërëm sama ndey ak sama baay comme niñ ma yërëme woon bi ma nekkee xale ndeysaan xale bi da doon wayal yaayam mu ne ahabu nnaasa lil ummi wa man bi ruuxi tafdini ndeysaan mokkal ngeen woy boobu ahabu nnaasa lil ummi wa man bi ruuxi tafdini mokkal leen aywa ñu dem ci jamono boobu nag nga xam ne nuux ñaan na ñaan gu rëy gi daane yàlla yàlla nga ma jéggal man ak sama ñaari way jur yemu ci de mu ne wali man daxala baytiya muminan ak képp koo xam ne dugg na ci sama mbooloo nekk ku gëm yàlla ku góor ak ku jigéen mu ne wala tazidi zalimina illa tabaran yàlla kàccoor yi bu leen yokkal lu dul alkande huna jaa al wahyi fii nag yàlla wahyuwaat Nuux lan la ko wahyu bi binaa'i safina yàlla ne ko yettal ma gaal defaral ma gaal ah mbir mu doy waar Nuux lan la woon démb lan la doon liggéey Nuux lan la doon liggéey la ilaha illallah nuux lu mu doon liggéey démb lu mu doon jàngale ah da doon daawa da doon waaraati da doon jàngale di woote ci yoonu yàlla léegi nuux bàyyi na loolu nuux ma ngay defar gaal yàlla ne ko defaral gaal safina daxma gaal gu rëy azim gaal gu ngand wa fi riwaya annahu banaha fi mi'ta sana xam ngeen lu leen di wane gaal gi daa ngande téeméeri at la nuux defar gaal gi lu tax gaal gi egg téeméeri at ndax déedéet ja ñoo fi mu dëkkoon ay montagne xeer la amul garab léegi day dem jëmbat ay garab ba ga roose leen ba garab yi màgg mu dagg ko ñëw defar gaal moo tax mu am téeméeri at muy defar gaal fa kaana yazra'u sajara wa yabni day defar garab yi ba garab yi màgg boo garab yi mën a mën a mën a nekk ay planche mu siyee garab yi weer leen ba ñu wow xaraat leen ñëw doog leen defar gaal moo tax ga affaire bi jël temps téeméeri at nuux di defar gaal wa kaana wa ma kaana qurbuhu ma wa kaana yaskunu fil jibaal ci ay montagne la dëkkoon amul ndox montagne yi amul ndox du gis ndox wa jaa al wahyu yàlla wahyu ko ne ko wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wala tuxaatibni fi lezina zalamu innahum mugraqun yàlla ne ko defaral gaal ci sama ndigal wasnail fulka bi ayunina defaral gaal ci sama surveillance man yàlla maay surveiller gaal gi aussi wa wahyina maa lay wax noo koy defaree jibril mooy wàcc sunu roosee garab yi ba garab yi màgg ba mu ne ko dagg ko mu dagg ko mu won ko nu mu koy defaree wa wahyina yàlla moo koy wax yu naka lay defaree gaal gi jibril lay yónni yàlla di jibril di ko jàngal waaye yàlla mu ne ko wala tuxaatib nii fi lezina zalamu tooñkat yi bis boo demee nag ba gis mbir di xew bu fi taxaw di indi ay sentiment wala tuxaatib nii bul wax ak man fi lezina zalamu ci gaa yi nga xam ne ay tooñkat lañ parce que xam nga doomu aadama daa bëri yërmande léeg-léeg nga taxaw ba nga ni nangam na am mbir moomu commencé nga eh waay eh eh nga commencé di indi ay sentiment te kat yow mi yaa ko ñaanoon yaa ko waxoon yàlla ne ko nag attention de bis bu demee ba ma sama mbir di ñëw say sentiment say yëg-yëg ak say affaire dëkkandoo ay mbokk ak ay loolu amul fii wax naa la ko nag bul xam man de ah ñu ne ko d'accord affaire bi continuer fa bada nuux yazra'u sajar wa yaqussu sajar wa yasna'u safina muy roose ay garab di jëmbët di dagg di daaj wa ya'ti bil hadis wa yaj'alu masamir wa hadha zukira fi alquran gaal gi nuux mu ngi ko defaree ay bant ak ay pont yàlla mu ne wa xamalnaahu ala zaatu alwaahim wa dusur nit ña yenu naa leen ci gaal goo xam ne ñu ngi ko defaree ay bant ak ay pont dusur mooy ay pont waaye xam ngeen lan moo xew nuux bi mu tàmbalee defar gaal gi nit ñi commencé waaru nan bopp kii du woon yonent ñu ne aha kay ñu ne léegi mu bàyyi yonent gi bàyyi waaraate nekk menuisier di yetti gaal affaire boobu doy na waar di moom faalewu leen muy liggéey rek muy liggéey rek su ko gars yi rombee nag di ko reetaan di ko moke naan ko yaanu loolu ñëw na ci hadis yonte yàlla Muhammad net lañu ko sirta najjaaran baada an kunta nabiya ee yow nuux ah yow léegi menuisier nga ginnaaw ba nga nekkee yonent nga bàyyi yonent gi nekk menuisier yaa nuux safinatun fil hajar gaal ci xeer gisoo ndox gisoo géej gisoo dex di yett gaal kii nag li ñu paayi waxoon dëgg la kii dafa dof nuux as-safinatu la tajri alal yabas gaal du daw ci suuf moom tontuwul de xam nga bu doon yow da nga fay nekk naan waaw baax na su ngeen xamoon lii yaa ndeysaan xam nga nit ñi ni moo tax nit nit nit dafa yàkkamti yàlla wax na ko nit dafa yàkkamti waaye xoolal nu yàlla wax na ko li mu ko wax rek moom mi ngi liggéey liggéeyam bu doon fii kenn la day ree naan waaw daan ne tel affaire bi nit ñi xam li naan xew suba waaye noo moom dafa tëj gémmiñam rek gaa yi di ko saboté am na sax riwaaye yoo xam ne vraiment ëppal nañ ci ne nit ñi dañoo ñëw ci gaal gi bi gaal gi waree pare dem ci duus ba gaal gi fees loolu moom loolu wérul li wér daal mooy nuux a ngi defar gaal gi gaa yi saa ñu ko rombee di ko ree di ko ree illaa yollaay waay góor gi kii daal kii daal yéen war ngeen wax ak moom di defar gaal te gisoo géej gisoo dex gaal moom saa yoo gisee nit di ko defar looy xalaat kii moom géej la jëm ndax géej gaal moom du daw ci tali te du naaw wala gaal day naaw gaal du naaw gaal lu muy def day day gaal day day féey gaal day féey day tegu ci ndox di dem gaal du tegu ci tali du naaw ndeysaan borom bi tabaraka wa taala di ñu nettali melokaan bi nga xam ne gaa yi moom lañ doon def yàlla mu ne wa yasnaul fulka nuuxa ngay defar gaal gi wa kullama marra alayhi min qawmihi saxiru minhu saa yu ko nit ñi rombee rek di xaqataay ak a kókkali xam nga nit ñi dañoo doy waar di keke keke keke di waxkante keke keke koko keke xool xool leen kii di kokkali di ree di waxkante ndeysaan allahu akbar yàlla mu ne wa kullama marra alayhi min qawmihi saxiru min saa yi ko rombee rek ñu tàmbali di ko ree qaala mu ne leen baax na in tasxaru minna inna nasxaru minkum reetaan leen rek bis a ngi ñëw seen reetaan yi man tamit dinaa leen ree jàpp ko foofu rek borom bi tabaraka wa taala mu ne fa sawfa taalamuna man yatihi adab yuxzihi wa yaxillu alayhi adabun muqim nuux ne leen bis a ngi ñëw di ngeen xam ne ñun ñaari kuréel yi ñu gëm ak ñu gëmul ñan la mbugal mi di wàcc seen kaw toroxtaange dal seen kaw mbugal muy sax dàkk nekk seen kaw gars yi duñ ko sax faale waaye dimbali ñu waa yow mooy li sénégalais di wax fii boo dee yàlla tawal doj boo dee yàlla tawal glace tawal birig inna lillahi birig asamaan buy taw birig foo jëm birig asamaan buy taw glace sax baaxul gis ngeen barki démb glace gi mu taw France avion yi toog nañ ay bis daw wuñ nit ñi toog ay bis liggéey wuñ ñu tëj école yi asamaan ndox mi muy taw sax baaxul day indi problème waxuma laag nag nit ñi di sàkku ci yàlla naan ko tawal ay xeer bis bu yàlla tawee xeer fu ñu jëm maam seex nee na am na ñoo xam ne dañ naan yàlla tawal bulet xanaa ñooñu dañoo xiif ndeysaan wa jaa fi wasfi safina pour ñu wax leen ne gaal gi di yàlla doon tabax loo nuur waxoon nañ léegi gaal gi ñaata at la toog ñaata at la nuux defar gaal gi ñaata at la nuux defar gaal gi téeméeri at léegi nag ñu wax leen pour ngeen xam gaal gi ni mu toll ngeen xam ne war naa ma téeméeri at ñoo ne ci riwaaya ibnu abbas radiyallahu anhuma yaqulu najara nuux as-safina bi jabali buuza nuux a ngi tàmbali defari geer bi gaal gi ci benn montagne bu tudd buuza montagne bu ngand ci lay taxaw di defar gaal gi summa dahara tuufaan fa kaana tuuluha thalasa miat zira guddaayu gaal gi nii thalasa mia zira la loolu mooy ñaata thalasa mia mooy ñaata ñetti téeméeri mètre nii guddaay bi nii ñetti téeméeri mètre la gaal gi thalasa mia zira wa kaana mutabaqa gaal gi dafa roowoon mel ne bal nekkul comme gaal yi ngeen gis nii gaal gi dafa tëju ron mel ne comme bal nu mu tëjoo gaal gi noonu la roowee laha salaasa abwaab baaduha fawqa baad ñetti bunt la amoon nii bunt yi dañoo tegaloo bu nekk tiim sa morom mu ne wa haadihi safina mawjud ila al yawmi gaal gaa ngi fi ba tey gaal gaa ngi dëkk bu tudd nekk bu tudd Turki ay boroom xam-xam ci jamono ji ñuy wax ak yéen def nañ seeni dugg-dugg xam-xam wër ko ci àdduna bi ba gaal gi dafa xar ñaar mu ngi Turki mbokk yi gaal gi ci guddaayam bu mu gudd nekk na salaasa mia zira bi zira i jadd abi nuux jadd abi nuux mooy kan kan mooy jadd abi nuux maamu baayu nuux baayu nuux maamam kan la déedéet baayu nuux maamam ah adama waaw zira aadama zira aadama nii te aadama ñaata la woon aadama ñaata la njooloon 60 mètres 60 zira hauteur yaatuwaay 7 7 zira allahu akbar kon aadama ci ban lal la doon tëdd ban daal la doon sol ban uudee ko doon defaral daal ana ban téere ko doon ñëwal yére 60 zira 60 mètres ci dégg 7 mètres yaatuwaay ah gaal gi guddaay bi loolu la woon mu ne wa arduha xamsa zira lan lañ wax ni guddaay léegi nag yaatuwaay bi juróomi zira la juróom 5 mètres la xamsin xamsina zira mooy ñaata juróom fukki mètre la woon yaatuwaay bi wa tuuluha fi sama salaasina zira bu fekkee dafa gudd ni ci kaw asamaan fanweeri mètre la woon kon gis nañ gaal gi guddaay bi nii gis guddaay bi ci kaw gis yaatuwaay bi ba pare gaal gi ron am ñetti bunt gaal gi ci sànq li ñu waxoon ne gaal gaa ngi fi ba léegi alxuraan moo ko wax yàlla mu ne walaqad taraknaaha aaya walaqad taraknaaha aaya fahal min mudakkir gaal gi bàyyi naa ko fi ba léegi mu nekk kiimtaan fahal min mudakkir kan mooy waaru ci loolu gis nga am na mbir yu fi yàlla bàyyi ci àdduna bi pour nit ñi waaru la mais nit ñi duñu waaru xoola firawna xam nga ba léegi firawna mu ngi existe ku mënul dem Égypte boo demee internet gis ko léegi sax nit ñi dañ koy envoyante seen bultu portable nga gis firawna ne nguñ nguñ ñaaram lan la yàlla waxoon ci moom dinaa la fi bàyyi nga nekk kéemtaan li takuna aaya ah wa takuna liman xalfaka aaya di nga nekk ñi nekk ci ginnaaw nekk kéemtaan pour ñoom benn gis nga yàlla bàyyi na fi firawna pour nit ñi tiim ko da doon wax maay yàlla nga tiim ko gis ko mu dee ay siècle nga nguñu ngu ñaaral yaram bi dëgg dëgg war nga ragal yàlla inna fi dhalika la ibra liman yaxsha waaye nit ñi duñu kéem duñu waaru ci loolu yàlla bàyyi na fi gaal googu pour nit ñi mu nekk kéemtaan même mbugal yàlla mbugal xeet yi yàlla day wax ne kéemtaan la pour nit ñi war a delluwaat dellu ci yàlla waaye nit ñi loolu doyu leen ñoom dañu yàpp ne yàlla li mu defoon démb mënu ko fekk yàlla tëlewul dara lépp daf koy def rek pour doomu aadama dellu siwaat bi may ñëw léegi dañ may yónnee sama boîte message internet benn xissa bu doy waar benn waay waa ji li waa ji ma yónnee message bi bi muy message bi jeex dafa ne bu ngeen di tëdd ni ngeen fanaanoo njàpp na ngeen muslu yàlla ci seytaan na ngeen jàng seeni askar benn waay la boo xam ne dafa ñëw rek tëdd julliwul gee tëdd mu gént yowmal xiyaam jot mu am ñaari baas yu ñu baas ñu bind baas bi àjjana lañ jëm ñu bind baas bi safara lañ jëm nit ñi nekk ci baas bi benn oto taxaw dañ naan diw doomu diw aljanna la jëm mu ñëw dugg waa ji ci gént bi de loolu la gént diw doomu diw aljanna la jëm mu ñëw dugg diw doomu diw safara la jëm mu dugg fee léegi nag moom mu nee na ñu koy lim di lim di lim di lim ba ñu wax turam ne diw doomu diw aljanna la jëm mu ne ma dugg nee na oto bi fees kaar bi fees ñu commencé daw mu ne ñu daw daw daw daw daw daw daw ba ci yàgg ma gis ñu bind qaribun min jahannama salaasa kilomètre léegi de li des ñu egg jahannama ñetti kilomètre la mu ne ma jeg-jeg ñu bind qaribun min jahannama kilomètre mu ne chauffeur bi hee yow foo ma jëme foo jëm foo jëme oto bi kooku ne ko oto bi jahannama la jëm mu ne ko man ma war a dem aljanna kooku ne ko xoolal bu ma fontoo oto bi ñi fi dugg ñëpp jahannama lañ jëm mu ne oto bi daw ba caag ma gis ñu bind zéro mètre diggante oto bi li ko dese ak ak jahannama jege na mu ne ko eh yow chauffeur chauffeur bi daal di gestu mu ne ndeke man mi ngi ma woon ginnaaw nii ma defe ne nit laay waxal waa ji daal may gestu ne ma lan la ndeke iblis la mu ne ko iblis foo ma jëmee mu ne ko xamoo foo jëm jahannama nga jëm arrêté oto bi iblis ne ko oto bi mënul taxaw de direct lay dugg day ñëw rek ne pum soo bëggee kay da ngay daw tëb tëbal rek waa ji daal di fëx ndeke waa ji xool dafa doon nelaw mu fëxe ci kaw lalam daw tëb balcon bi rek daal daani ci suuf xam nga waa ji fu mu yeewoo hôpital daa yeewu boppam gis tànk yi damm hôpital ñu tëral ko nit ñi di ko seet si ku ñëw mu nettali histoire bi rek nga tëdd ci kaw hôpital bi di ree benn malade tànn waa yéen est-ce que ñi normal nañ nekk ci hôpital di ree rek daal di ñëw ubbi saalum ki fe ki ki doon nettali xis na ko yow est-ce que wér nga yaag say mbokk waaye na ko lu xew mu ne yéen hôpital bi ni ñu feebar nga nekk fi di xaqataay mu ne wallahi lii bu ma la ko nettalee nga ree kaay toog noonu la xisa bi tàmbalee benn waay la bu dégg ay xàqataay ci hôpital mu defa ne ñi loolu moo leen dal mu ñëw gis ngeen waa jooju lan la ko iblis def def ko tiital ba guddi mu daw ci ni biir néegam fëkk ko bi buntam daw tëbbal ko defe ne oto lay daw mu ngi woon ci oto ndeke mu jógee ci étage bi di ripp ci suuf tànk ya dam waa ji nee na yeewu ma rek lu dul maa ngi hôpital gis ngeen iblis moom ñun foofu rek lañ jëmee ku ya war a jaamu yàlla bu ngeen di tëdd ngeen jàng seeni ñaan amul yàkkamti amul njëkkante lal amul njëkkante mbajj amul përëx përëx da ngay daw toog ndànk def say azkar daal di tëdd ndey joor bismika allahumma amutu wa ahya daal di jàng say ñaan daal di diw ci sa yaram yëpp noonu la jullit di def mbokk yi qissatu nuux mi ngi nii nuux defar na gaal gi ngeen gis gaal gi fi mu toll guddaayam yaatuwaay njoolaayam ci kaw ak yaatuwaayam ci suuf yàlla ne bàyyi naa fi gaal gi mu nekk kéemtaan ci ñépp ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw pour ñu war koo xalaat ñu war cee xalaat yàlla mu ne ñu xalaat ci mbir moomu lu tax yàlla bàyyi fi gaal googu borom bi tabaraka wa taala mu ne wa hakaza kaana wasfu safina summa jaa tuufaan wallahu subhanahu wa taala ataahu alama ata alama li nuux après tuufaan ñëw lan mooy tuufaan mooy am mbënn am mbënn moo xam ne dafa bàyyi ko ci asamaan ak suuf ndox waaye balaa tuufaan bi ñëw ndox mi yàlla jox na nuux ay ay kintaan mu ne ko boo gisee nangam gis nangam gis nangam rek jubalal ca gaal ga yàgg nit ñi ngi la gëm wooteel na nga woote nuux alayhi salaam jékki-jékki rek bakku na ci màndarga yi ko yàlla jox yàlla ne ko bis boo xëyee suba puuru mburu bi nga daan toggee di lakk mburu mi di ndékki nga gis puur bi di génnee ndox puur bi lan puur bi lu fa doon nekk puur bi lu fa doon nekk puur lu fay nekk bis boo gisee puur boobu doon génne safara daan ñoral mburu bi nga xëy suba gis puur bi ball di génne ndox naan puk puk puk puk puk bu yeboo nga dajale say bagage te dem ca buntu gaal nga taxaw nga woo ñi la gëm ngeen jël seeni bagage nga taxaw ci digg dëkk bi xeet wu nekk rabu àll bu nekk nga jël ci ñaar dugal ci biir gaal gi nu xëy benn bis rek doon préparer ndékkeem jékki-jékki rek gis ndox mi di pux puxi ci biir puur bi nu daal di dajale ay bagaasam jël ñi ko gëmoon borom bi tabaraka wa taala mu ne hatta iza ja hatta iza ja amruna wa farra taanuur ba suñu mbir dikkee pour ba moo explosé ndox di fa génn qul naa ñu ne yaa nuux ihmil fiha min kulli zawjayn isnayn xeet wu nekk jël ci ñaar na nga yëg ne tey wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl dina alku ba mu des ñi la gëmoon kese ñéppay alku yàlla mu ne wa ma amana maahu illa qalil gëmul ànd ak nuux lu dul lu tuuti mooy ñaata nit juróom-ñeenti nit ñoo gëm nuux allahu akbar filan fi l yawmin min al ayam ci mbiru yàlla ci kàttanu yàlla benn bis ci bis yi ndox mi daal di exploser yàlla daal ne ko jëlal xeet wu nekk ñaari xar ñaari nag ñaari bu nekk ñaar góor ak jigéen bu nekk ñaar góor ak jigéen bu nekk ñaar góor ak jigéen loo xalaat ci rabu àll rek ñaar góor ak jigéen nga dugal ci biir gaal gi loo xalaat rek fii nga toog fii nga toog fii ngay dégg loo xalaat rek ci rab nu jël na ñaar dugal ci biir gaal gi ba gaal gi fees del yàlla daal di koy jox ndigal gaal gi nu muy déparé waaye balaa gaal gi départ yàlla mu ne wa fatahna abwaaba sama bi maa in munhamir wa fajjarna al arda faltaqa al maa ala amrin qad qadir ñett mbir wa fatahna yàlla ne dama ubbi abwaaba sama buntu asmaan yi dama ubbi yëpp ndox mi commencé sotteeku wa fajjarna al arda ma ballal suuf si suuf si ma dindi bunt yi suuf si commencé génne ndox ba ñaari ndox yi daal di daje ndoxu asamaan ak ndoxu suuf faltaqal ma ala amrin qad qudir ci ndox moo xam ne yàlla nee na maa ko dogal incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba àllarba bii di ñëw ñaan borom asamaan ak suuf mu nangul ñu sunu jaamu yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu